yaa ngi wax léegi wàllu formation ak modab fan yi dañoo gis benn polémique ci biir modab mm-hmm. boo xamante ne nii euh, question la boo xam ne ñu ngi koy laaj ci internet bi di ko laaj fépp su ma dalalee ki nga xam ne mooy président wu modab dana jaadu ma laaj ko ci mm-hmm. muy sorti imam Dramé mm-hmm. euh, nooy jàngate euh, yooyu waaw def naa dégg ngeen sorte même gis ngeen communiqué tam mm. modab moom moo nekk porte parole modab waaw mm. mais gis ngeen communiqué imam Dramé ma nuyu ko de passage mm. membre modab la ci ñu ko fondé la bopp ci jàmbaar yi la bokk tam ànd ci xeex bi def ci wax dëgg yàlla lu ñëpp seede hmm. Sénégal yëpp seede euh, nun nag doo def lu ñu jàppe ni erreur la tey ñu fàtte la nga defoon démb ci lu baax hmm. ñun bokkuñu ci ñooñu nit ku ne lañ xam ci yow ci lu baax dañ koy wax même bu dee dañuy nangu ni nàngam erreur la hmm. waanaam wax ba wax loo xam ne day niru saaga wax ba wax loo xam ne day niru xañ na tàng tàngoor loolu njuumte la te loolu defe naa ni kon dam ne nañ ko ñun ci cadre euh, mouvement bi ñu bokk. Mm-hmm. bind nañ ko ci arab bind nañ ko ci francais def ko ci réseaux sociaux yi defe naa ni ku dégg lee gis nga lii. Mm-hmm. yaakaar naa ko bokk. Mm-hmm. buñ ko déggut itam mooy ñu wax ñun ci suñu kàddu ñëpp dégg ni moo daal àndul ci képp kuy wax te la ngay wax daa ami saaga wala wax loo xam ne nii xañ na euh, mën naa yëkkati ay xol déedéet ñun jàkkaarloo nañ fi ak Macky ci ci question yu rëy yu metti mais kenn mësul dégg ñu saaga mësuñoo sax sàllalu ma sa Macky Sall mësuñu ko sàllalu man daan naa toog ci ay kilifa Pastef ni leen bàyyi leen di wax Macky Sall de leen wax son excellence monsieur le président de la république lu ngeen cay teg nag na nekk dëgg lu metti metti na nekk dëgg te ngeen am ci firnde waaye sàllalu nit rek kenn du ko def hmm. donc ñun dañu jàpp ni dañoo war di wax dëgg wax ko ba mu jotee wax ko fañ ko war a waxee waaye nag dañoo jàpp ni dañ ko war a wax ci yar ko war a wax ci yar wodd ko ba nit ñi dégg ko alxuraan a gën a dëggu ci kàddu yi mm-hmm. moom ci boppam yàlla tudde ko xaq mm-hmm. waaye moom moo gën a neex ci kàddu yi ba da koy dégg di jooy te xamoo li muy firi ndax neexit wa mm-hmm. su jóot loo na walla Walid ibnul Mughira hmm? te neexaay waa tax mu sujjóot ko du gëmu ko kon alxuraan ni mu nekkee dëgg noonu la neexi kon nekk dëgg kàddu mën naa nekk dëgg yàlla ba muy wax Moussa ne ko wa qulaa lahu qawlan layyinan hmm. waxu ko woon ni ko demal demal demal di layaam layaami ci wetam déedéet dañu ko demal waxi ko dëgg. mais ñi lu mu ko wax. mais ñi def sorti ñëpp ci turu Modab. Hmm. Euh, itam loolu ndax Modab dafa organiser wut wala wala lan la. léeg-léeg ma dégg loolu question bu am solo la léeg ma for ab euh, ab vidéo Maodo boo xamante ne nit dina wax ne euh, maanaam jël engagement ci turu diine maa ngi fi doon dégg ku doon wax ne Ousmane Sonko daa war a ñëw kër sëriñam daa war a ñëw seen kër membre la ci biir Modab. Euh, sorti imaam drame bi léegi nii bi may ñëw maa ngi seen kenn ci Sénégal set mu toog di wax ci turu Modap yooyu yëpp bul euh, junj waxal bul junj waxal carrément Serigne Cheikh Niass waaw mais su fekkee su ma nga xam ko waaw Serigne Cheikh Niass itam Serigne Cheikh Niass sam li may wax ci imam Dramé laay wax ci moom ah. dafa am taxawaay bu rafet ci hmm. liggéey bi hmm. di jàmbaar liggéey ci zone bu mu dëkkee muy Kaolack ak kër ga mu dëkk muy lew na ñaseen def ay liggéeyu Sénégal yëpp teg seen bët hmm. moom gis-gisam man dama ko respecté jàpp naa ni Sénégal yëpp mën nañ ko nangul. Hmm. mooy président Sonko président Diomaye jóg nañu def ay di dem ci kër yi diine ñaari kër lañ demagul nañ dem ci kër yi ci des. Hmm. loolu la wax. Hmm. te loolu lu normal la. d'accord man mii su ma jàkkaarloon ak ñoom loolaa leen di wax. seen tournée bi su ngeen ko mënee yaatal. yaatal leen ko. ndax Sénégal dem Touba dem Tivaouane de bégloo na Sénégalais yu bari mais am na yeneen i gox yoo xam ci Sénégal la bokk dañ faa war dem. donc loolu du du du kàddu du kàddu goo xam ne man jàpp naa ne warees nag xaj na ku nekk ak nag na ngay waxee waaye kàddu dëgg la goo xam ne te jàpp naa tam mhm. ci sama rafet njortu mhm. ni président Diomaye ak premier ministre am jàpp naa ni danañu def tourne boobu danañ ko àggale. Mhm. loolu tam sama jàpp-jàpp sama njort la rek. d'accord dégg nga beneen bi am na question boo posé. ma bëgg ci tontu. ku jóg ni maay wax ci turu Modap. loolu dafa am lu ko waral. Modap bi mu defee lancement ñetti semaine la ca teg secrétaire ba ko tuddoon ñu jàpp ko tëj. parti ba mu bokkoon ñu tas ko. kon ba tey Modab jotuta def lu ñuy tuddee structuration. te loolu defe naa ni Sénégal yëpp mën nañ koo xam nangu ko mooy ba ñu nee bëreet ca lañ tas suñu parti boo nee mouvement bu bokk ci parti laa ñu tas parti ba nooy nooy samp say couleur. Mhm. mënoo samp couleur ñu ni nag léegi ñun ñi ngi fii nañu xeex pour élection yi suñu combat yëpp bu fi kenn waxati waxi structuration. Mhm. ku nekk foo nekk dajalee la nga man defal loo man pour ñu gagné. Mhm. xeex boobu def nañ ko. Mhm. ba ñu jógee ci élection yi la ñu njëkk a def la njëkk a def mooy def réunion ni dañuy def ñun installation suñuy suñu 46 département ba tàmbali tournée bi sax dem Mbour samp Mbour pour wax la ni tàmbali nañ ko. semaine ba ca topp bureau politique bi ñu bokk ñun. nga xam ni membre ñi ngi siège de bureau politique joxe communiqué ni nañu suspendre activité d'installation yi ba ci kanam suspension boobu dafa am lu ko waral mooy dañuy def ay réglement intérieur ay statut comme parti bu ñu tasoon la ba koo jëlaat dañu war a diisoowaat ci biir texte yi yeesal yu baree baree bari doog a installé base bi ci période boobu lañ nekk ñi ngi xaar tey ñu joxaan ñu ndigal ñu dem àggale installation. d'accord parti bu ñu mm. ko installé wul nag ba jox la post yi ci ay kayit ni diwa war a war a def lii diwa war a def lii. Mhm. bu boobaa diggante boobu ak pouvoir bu bees bi. Mhm. ak euh, cafkay yenn kii yooyu yëpp. mën naa indi andi léthargie ba nga defee nii Modap moo bindoo noonu fekk na Modap dafa installé gul ay instance am mooy lii ma la wax. d'accord Maodo. Hmm. waaw bon xam nga <laughs> wax ji bari na lool. bari na waaw ma ci noté nii rek. Mhm. xam nga li surtout li nga ko laaj ci Dramé euh, mooy kàddu yooyu nga xam ne wax na ko man génnoon naa ci benn site wax ne. Dramé <clears throat> juum na d'accord juum na waaye nag jàmbaar la. ndax bi bi taxaw jotee taxaw na la mu waroon def def na ko. Hmm. nit nag da ngay wax li nga xam ne moom nga xam ci moom lu baax li nga xam ne ay rëq-rëqam la ngeen gisante ci roq ngeen waxtaan ak moom. effectivement loolu mooy mooy mooy yéwénal mbir mi. parce que Dramé euh, deretam ma naa tàng mu jékki-jékki wax loo xam ne après. boo demee sax moom regretté jër hmm. jëru nag yenn commentaires yi yàq nangam ak nangam mais souvent dara bu xewee. Hmm. Euh, dañuy wax ne ci la xew dafa am sociologue yoo xam ne danaan la xew. ca cat la daa mel dañ cey jàpp di gën a xëcc muy gën a xew rek parce ñoom ci loolu ci la ñuy profité pour mën a gën a nekk euh, loolu nag yaakaar naa ne Dramé bàyyi na ko xel te it yaakaar naa ne itamit euh, loolee mu wax njuumte la comme ni ko sëriñ bi waxee Tahir jeex na nañ jàll ci leneen léegi euh, li ci des mooy mouvement bi nga xam ne xëy na li mu wax léegi ci fin bi dafa am solo mooy wutagu wutaguñ luñ ko ay bànqaas mmh. te loolu mën naa indi ay jafe-jafe luñ ci mën a gaaw nañ ko gaaw def ndax am na fi parti politique boo xam ne bi ban fi jógee yàggul ba léegi itam ñu ngi fi mhm. waaye seen problème majeur moo doon est ñoom sax toogoon nañu ba nangam ak nangam mhm. euh, am na ay parti yoo xam ne tey jii pour ñu def congrès parce que tey jii ans PDS yi ñi ngi dajaloo di waxtaan parti socialiste ko fi doon def am na parti yu bari yoo xam ne congrès sax ñi mëwul ko def parce mhm. que ragal ak tasam ak bi ci des mooy li mu wax léegi ci ne sëriñ bi sant Niass wax na ko. te mm-hmm. dëkkale woon na Niassène ci mm-hmm. kër diine yi. Mm-hmm. mais loolu c' tout à fait normal. parce que Sénégal dëgg la ay murit ak tijaan bari nañ fi loolu waaye ñoom rek nag nekkuñu fi nag. wax dëgg yàlla man mi ab tijaan la. te ba defe ci ñi gën a kawe ci ci tijaan ci tur boobu lañ ma jox sax foofu. waaye nag fii ci biir réew mi waaye nag firiwul nag ne état noonu lay doxee mais tax ma jàpp ne. ci seen stratégie ñoom la gouvernement de Sonko et Diomaye li ma wér mooy ni Tahir mi wax bay ba mu waat ko nag wóor na ma wóor yàlla dañu ko bàyyi noonu mu neen seen programme la te incha allah daañu ko def jàmm na ñooy. Mhm, d' accord euh, jërëjëf sëñ Maodo sëñ Tahirou am na ñu naan seen part ci gato bi ngeen jotagul ndax nomination yi ñu ngi dégg façon bu ne waaye waa Modab déggaguñ leen. <laughs> looloo waral pëccëxoo bi rek kàddu yu tasaaroo yi. da ngeen di xaar paar bi wala. fu mu nga euh, xam nga Mbàkke réew mu mu xorom. ñun hmm. ay doomu daara lañu bokk ci réew mi gëm ni dañoo war a bokk ci ñuy defar réew mi phase bi ñu toll woon xeex ko def ko bokk ci ñëpp te defe naa ni Modab bu ñu génne woon lim liggéey ci victoire bi yaakaar naa ni euh, ñu bari danañ jommi. Mm-hmm. parce que ki xam Sénégal sociologiquement parlant. Mm. dugg ci biir kaw gi dana xam sëriñ daara lu mu fay tekki. Mm. sëriñ daara bi mooy xutba ci jumaa ja sëñ daara bi mooy mooy dem ca mbooloo ma mooy dem ca jàngee rajo communautaire yi ñoo fay waxtaan. te mm-hmm. ñoo la ñu amoon ñun. Mm-hmm. Mbàkke yéen ñii woo naa leen. Mm-hmm. chaise. yéen ñi prêcheurs yi woo naa leen chaise Oustaz Taïb Socé mooy dégg Oustaz Assane Seck mooy dégg Oustaz Mansour Diop woo naa leen chaise ni leen damaa bëgg ñu partager programme mu Pastef. ci wàllu diine. dañu bëgg itam yéen ngeen jàppale ñu ci seen kàddu fu mu dem donc ñooñu liñ def moo li mu liggéey. partage bi partage partagé ak association islamique yi Mbàkke fekke nga ko oustaz Dame Ndiaye nga fa woon jamaatu Ibaadu a nga fa woon a nga fa woon ja fa nekkoon bari nañu représentant xalif yi nekk ci biir. li ngay wax nii da ngay da bëgg a wax ne day wane ne Modab war na am ab cër. waaw damay damay àggale. damay da nga maa laaj ma wala waxtu wi ñuy njëkkante. waaw jaaree ci raccourci donc liggéey bi def nañ ko. Euh, est-ce que bu fekkee dem nañ bay tabax Sénégal bu Modab war na ci bopp. Hmm. waaw na bokk ci. du modab jëmmi modab mais sëriñ si. Hmm. ñiy jàng arab di jàng alquran war nañoo bokk ci lii tabax réew mi. Hmm. warunoo langaamu. Hmm. ci benn parti man nanguwuma ko. bi ma duggee ci Pastef la ma njëkk a def mooy dugg ci programme Pastef xool lañ bind ci daara xuloo ca ba indi ca ñun lañ jàpp ni ma fa war a nekk. kon yéen a ngi xaar ñu takkal leen. ay bàyyil ma àggale bàyyil ma àggale. Euh, dafa am dafa wu dafa am waxeen wu gone. Mm-hmm. am waxin wu gone. d'accord am waxin wu waxin wu waxin wu opportuniste ak waxin wu eh, mm-hmm. dama ni Modab war naa bokk ci ñiy tabax réew mi mm-hmm. war naa bokk ci gouvernement bi di cay dox lépp Modab war na cee bokk mais du ñun ñooy war a manifester pour bokk ci du ñoo war a wax pour bokk ci waruñu ko solal mbubb waruñu koo solal tubay xam nga lu ñu war a def bàyyi ñi ñu fal ak seen conscience ndax nit mënul juger boppam. bàyyi parce que fal nit mooy yow wóolu naa la ci sama bopp. bàyyi leen ak seen conscience. d'accord Jomaay euh, xam na kuy kuy kuy kuy kuy kuy Imaam Dramé. Uh-huh. Sonko xam na kuy Imaam Dramé. Uh-huh. xam na Tahir Fall xam na si la ñoom ci dëkk bi leen dëkk. Uh-huh. xam nañ ñu doon yëngu ñu doon def donc bu ñu demee ñoom ba seen i ak seen xam-xam ak seen doxalin ci xel mu dal mu sedd jàpp nañ ni diw mën naa def nangam. su boobaa loola du nekk benn problème dafa normal comme ni ñu jàppee ni diw mais war naa nekk ministre ci domaine sàngam. Mm. donc tranquillité boobu ñu am ñoom ci ministère ya ñu tànn boobu la ñu bëgg ñun waa waa waa Modap ñu jox leen ko. Mm-hmm. ñu am seen droit de regard. Mm-hmm. ci éléments yi ñu doon liggéeyal am seen sañ-sañ am seen toute responsabilité. ku ñuy fal nañu ragal yàlla ca lañ lay jox na fekk nga man ko. d'accord. bis bu ñu falee koo xam ne mënu ko bokk na modaab ak bokkut modaab bu ñu ci xamee dara dañuy taxaw xeex ko mhm. parce que ñun liñ fi doon xeex mooy ida wussidat al amanatu ila gayri ahliha fantadiri saa loolu la yonent bi waxoon mhm. mbir dañ koy jox ko ko man su fekkentee ni joxee nañu mbir yi jox ko ko ko man ñun de dañuy tàkk ñun waa modaab kontaan nañ mhm. su fekkee nag defee nañ ko noo xam ne bokkut ak ligne ba ñu jaaroon ànd kook ñoom gëm ko xeex ko su boobaa dañuy dem. kantaan nag di tudd naan war nañoo fal diw war nañoo nome diw man jàpp naa ne loolu laa ne waxi gone la. Mm. parce que ki nga koy wax moo xam la muy liggéeyloo. Mm. moo xam ki mu koy liggéeyloo lu man moo xam ci xam na ca kam koy liggéeyloo loo ca xamul yow miy wax. Mm-hmm. la muy liggéeyloo xam na ca loo ca xamul yow miy wax. Mm. comme bokkoo ci biir boo demoon nag ba jomaay wala ne la Mbàkke si la lan nga xalaat ci nangam su boobaa nga jox ko sa xam-xam. mais dem ci média yi naan diw war naa fal diw man loolu débat boobu vraiment ma ci. d'accord.